dinañ ci jeex te li nga xam ne moo xew ci ndakaaru loolee ab avertissement la maanaam ab dànkaafu la journal bi di Source A nee na am na ñett ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan waaye nag Ousmane Sonko tuumaal na général Moussa Fall ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall nee na leen ñii ay assassin lañu maanaam ay raykatu nit lañu yéen kaay gii de libération nee na sa diwaanu a am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu fa seen bakkan kenn ki Abdoulaye Diatta la tudd kenn ki na ñaar ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan sa diwaanu Ziguinchor bal réel leen tuur yéen kaay gi nee na wane na démbu dooleema yéene kaay gi nee na Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ñooñee dañu leen a neutraliser dañu xëy jàllale leen lu nekkoon ay takk dër ci seen bundu kër na leen du leen fi génne yéene kaay gi xale yi ñoom wàcc ci mbedd mi tàngal ko ba mu tàng jër yéene kaay du source xëy di def bilan bi nee na démb am na ñoo xam ne faatu nañu ci am na ñu ñu teg loxo bëri na tamit ay pëna yoo xamante ni taal nañu ko yéene kaay gi nee na Ousmane Sonko dañu ko tere nit ki démb mu génn dem julli ji yéene kaay gi nee moom la ñu def Ousmane Sonko Barthélémy Dias moom ci ay takk der yoo xam ne Bart mënut a génn Ahmed Aïdara ñu teg ko loxo maire bu Guédiawaye Déthié Fall moom tamit ak Mame Diarra Fall jamono ji sax ñoo ngi cëb garda fii yéene kaay gi dalee si ko nee na ci jàppante bi bëriwu na ñoo xam ne am nañu ci ay gaañu-gaañu ba tey ci journal bi nee na station Total bi nekk Colobane dañu koo saccagé maanaam dañu ko yàq yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na Yewwi Askan Wi dañu ko confiné ni ki démb police moo leen confiné ndax Ousmane Sonko dañoo xëy yoo xam ne amul benn boor boo xam ne mën na faa génn Barthélémy Dias moom tim noonee def Ousmane Sonko naqari na lool ki nga xam ne mooy Alioune Tine ndax nee na loolu teguwul fenn yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na démb ajjuma la joo xam ne tàngoon na ci diwaanu Ndakaaru waaye tamit tàngoon na ci diwaanu Ziguinchor yéene kaay gi Ousmane Sonko nee na nag bu dee ñi nga xam ne ñooy manifester ci diwaanu Casamance ñoo bal reel lañ leen di dóor te loolu nag teguwul fenn Ousmane Sonko ne li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci Sénégal fépp ci réew mi daal bu ñuy manifester kenn du leen dóor ay bal reel waaye nag bu dee Casamance ñoom moom ay bal reel lañ leen di mel ni ñoom bokkuñu ci réew mi Ousmane Sonko ne képp koo xam ne yaa ngi politique nekk ci ku jigi boo dëkkee Casamance ñu lay woowee ab rëbe la te loolee tegiwul fenn 2024 nag la Macky Sall di jeexal ci bopp réewum Sénégal dama bëgg mu leer te ñi xam ne teg na loxo na leen bàyyi su leen bàyyiwul danañu leen jëlee te Macky Sall la jamono ji lu ne def na ko wàcce ay takk dara bëgg ñoo xëbal bëgg ñoo napp waaye leer na ko ne munta napp askanu Sénégal ndax xale yi wàcc nañu ñu koy fekk fa kaay gii di Le Quotidien nee na encore des morts maanaam am na ñu faatu nag ci manifestation bi waaye à qui la faute noonu la ko journal bi xëy fësale yéen kaay gii di L'As ñu xëy fekk fa docteur Babacar Diop maire bu Thiès ñaawlu na bu baax a baax doxalinu Macky Sall ak jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci réew mi ñaawlu na bu baax a baax leader yeew yi nga xam ne teg nañu leen loxo moom docteur Babacar Diop ñi nga xam ne tamit dóor nañu leen jàpp leen toroxal leen loolee tamit tegewul fenn yéen kaay gi di réew mi Quotidien bàyyi mbir moomee siq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Abiba fukki fukki ak ñeent la commencé musique waaye nag première single la ma ngi ko génne ci atum 2016 moom Abiba ci biir journal bi nee na bëri na ay chaînes yoo xam ne invité nañ ko fa lu si mel ni chaîne Youssou Ndour ak Baba Mala bëri na tamit ñoo xamante ni ànd na ak ñoom way moom Abiba wax na ci ay projet ma wax na ni mu gisee musique ci senegal wax na ne waajuram wu góor ci lay inspiré way yéen kaay gi di Stades nee na mbir mi jeex na mbir mi leer na Sadio Mané jóge na Liverpool dem na Bayern signé na fa contrat boo xam ne ñetti at la 40 millions d'euros la ñu ko fay